ñu gën a rafetal kàddu yi ñu sànni ndax dañoo xalaat ne euh, suñu borom tabaraka wa taala dafa wax yonante bi ne ko sooy wax ak mbindeef soo leen di woo nga defe ko ci xikma ak mawxiza xasana maanaam nga defe ko defin bu rafet moo tax jamono yi nga digg ñu bëree bëri di dal ci kaw kilifa yi ma jàpp ne la gën a rafet mooy suñ ciy wax ñu waxee ko waxin bu rafet waa loolu tam ñi ngi ñi ngi ñi nga xam ne ñoo yore wàllu googu ñu ngi leen di soñ ñu gën cee góorgóorlu ndax réew balaa mën a am jam day am bala mën am yokkute day am kaaraange ndax bo seetloo ci suñ tool ci all bi dem na ba ñi nga xam dañuy liggéey sàmm dem nañ ba am ay jafé jafé ndax buñ amé ak jur dañ ko fay dañ dañ leen di dañ koy jël lor leen wa kon nak ñi ngi ñaan tam walu gogu ñi nga xamanteni ñoo loolu ñu taxaw ci ba nga xam ñi ci all bi bëgg a liggéey danañ mën a sàmm ñu am benn jafé jafé loolu tam liñ ci def moy ñaan rek ci suñu borom tabaraka taala ndax suñu borom mo wax ne euh, na ngeen tuub su ngeen tuubee jëm ci man danaa leen jox wërsëg danaa ubbi samay bunt ci asamaan si mu taw kon nag nañ delluwaat ci loolu rek. politique bi moom ñaari dañ ci faral di wax lu bari dañuy gën a dañuy gën a concentré comme li ma waxoon ne ku ci ne daa am muy liggéeyee xam nga journaliste bi moom mi ngi liggéey ci tas xabaar sëriñ bi itam di wàññi ay taalibeem di leen digal lu baax waaw su ko defee politicien bi itam ne ci wàllu politique bi xam nga ndax fi ne politique dafa naqaree wax. ndax bo waxe ci mbirum politique euh bu dee lu arrangé état bi mm, politique ki opposition bi ne yow lañ eh, ñom nga waxal bo waxe lu arrangé opposition bi pouvoir bi ne ñom ñom nga andal tax xam nga ñun amu ci kenn ko xamne ni euh, ñun señ tuba ñu defal lepp mm, lool mo tax réew mi nak liñ ci bëgg nañ lool nak suñ sañon tam réew mi euh, wa réew mi gis ci seen bop bu baaxa baax ndax man ma ngi doon gënt dem ba Sénégal société bu mag bo fi gis borom nek ab jola wala wolof wala séeréer wala pël dëkk ci réew mi la